Luk saar fukk. ginnaaw loolu borom bi tànn na yeneen juróom ñaar fukki taalibe ak ñaar yebal leen ñu ànd ñaar ak ñaar jiitu ji ko ca dëkk yépp ak ca barab yépp yamu naroon a dem moom ci boppam mu ni leen ngóob mi yaatu na waaye liggéeykat yi bariwuñu ñaan leen nag boroom ngóob mi mu yebal ay liggéeykat ñu góob toolam dem leen maa ngi leen di yónni mel ni ay mbote ci biir ay bukki bu leen yor xaalis walla mbuus walla ay dàll bu leen nuyu kenn ci yoon wi kër gu ngeen mën a dugg na ngeen jëkk ne na jàmm wàcc ci kër gi bu fa nitu jàmm nekkee seen yéene dina ko indil jàmm lu ko mooy seen yéene dina dellusi ci yéen dal leen ci kër googa tey lekk ka naan lu ñu leen di jox ndaxte liggéeykat yelloo na jot peyam bu leen dem nag kër ak kër dëkk bu ngeen mën a dugg te waa dëkk ba teeru leen lu ñu leen jox lekk leen ko nangeen ngeen jara gi dëkk ba te ngeen ne leen nguuru yàlla jege si ne leen waaye bu ngeen duggee ci dëkk te teeruwuñu leen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 te ku ma bañ bañ na ki ma yónni juróom ñaar fukki taalibe yi ak ñaar dellusi fees ak mbég te naan boroom bi rab yi sax déggal nañu nu ndax sa tur yeesu ne leen maa ngi doon seen seytaane wàcce asamaan ni safaraas melax gis ngeen jox naa leen sañ-sañu jog ci jaan yi ak ci jiit yi daan doole bañaale bi te dara du leen mën a gaañ moo ne li leen rab yi déggal bu mu tax ngeen bég waaye bég leen ndax li ñu bind seen tur ci asamaan ca saa soosu xel mu sell mi feesal yeesu ak mbég mu daldi ne yow baay bi boroom asamaan ak suuf maa ngi lay sant ci li nga nëbb yëf yii ñi am xam-xam ak ñi am xel te xamal leen gone yi waaw baay bi ndaxte looloo la neex yéesu teg ca ne sama baay jébbal na ma lépp te kenn mënula xam man doom ji may kan ku dul baay bi kenn mënula xamit kan mooy baay bi ku dul man doom ji ak ku ma ko bëgg a xamal ginnaaw bi mu waxee loolu yéesu wëlbati ko ca taalibe ya ne leen ñoom rekk ñi seeni bët di gis li ngeen di gis am nañu mbég ndaxte maa ngi leen koy wax yonent yu bari ak buur yu bari bëggoon nañoo gis li ngeen di gis waaye gisuñu ko te dégg li ngeen di dégg waaye dégguñu ko noonu benn xutbakat daldi jóg ngir fexe fiir yeesu ne ko kilifa gi lan laa war a def ba am dund gu dul jeex yéesu ne ko lu ñu bind ci yoonu musaa lan nga ciy jàng nit ka ne ko nanga bëgg yàlla sa boroom ak sa xol bépp ak sa bakkan bépp sa kàttan gépp ak sa xel mépp te it nanga bëgg sa moroom ni nga bëgge sa bopp yéesu ne ko nag li nga wax dëgg la boo defee loolu dinga dund ba faaw waaye xutbakat ba bëggoon na am aw lay ne yéesu kan mooy sama moroom nag yeesu tontu ko ne dafa amoon nit ku jóge woon yerusalem jëm yeriko ay sàcc dogale ko futti ko dóor ko ba muy bëgga dee dem bàyyi ko fa foofu ab saraxalekat jaar ca yoon wa seen nit ka teggi benn waay bu soqi ko ci giiru la wi aw ca barab booba seen waaja teggi waaye benn waay bu dëkk samari bu doon tukki ñëw ba jege waaja gis ko yërëm ko noonu mu ñëw diw ko diwlin ak biiñ ngir faj gaañu gaañu ya bandaas ko ginnaaw loolu mu teg ko ci mbaamam yóbbu ko ci fanaanukaay di ko toppatoo bi bët setee mu génne ñaari poseti xaalis jox ko boroom kër ga ne ko nanga toppatoo nit kooku bés bu ma fi jaaraatee dinaa la fay man ci sama bopp lépp loo ci dolli ci xaalis yéesu teg ca ne lu ciy sa xalaat kan ci ñett ñooñu moo jëfe ni kuy jëf jëme ci moroomam ba ñu gisee nit ka sàcc ya dogale woon xutbakat ba tontu ko ne xanaa ki ko woon yërmandeem yeesu ne ko nag demal tey def ni moom bi yéesu ak ay taalibeem nekkee ci yoon wi mu dugg ci benn dëkk fekk fa jigéen ju tudd màrt ganale ko màrt nag amoon na rakk ju tudd maryaama ma nga toog ci tànki borom bi di déglu ay kàddoom fekk màrt jàpp lool ca waañ wa noonu mu ñëw ci wetu yéesu ne ko borom bi doo ci wax dara boo gisee sama rakk ji bàyyi ma ak liggéey bi yépp ne ko mu jàppale ma borom bi tontu ko ne màrt màrt yu bare ngi fees sa xol nga am ay téq-téq ndax loolu moo moona dey lenn rekk am solo maryaama dafa tànn ceer bi gën te kenn du ko nangu ci moom